chef de l'opposition lu tax mu dugal ko bañ demee ca discussion ba dama ne doon man rek maak ñeneen mbirum chef de l'opposition bu nu ko dugalee ci waxtaan wi mën naa indi féewaloo nañu ko yóbbu ca fin ba parce que man li ma dugal ci dialogue politique du yooyu dafa am ay règles yu fi doon dox ay ponk ak i sart ci mbirum vote ñaar fukki at ak lu topp mësuñoo wote ba coow jib ñu règle yooyee toxu man dama bëgg règle yooyu ñu delloosi ko ba lii dal yeneen réew yi mu wóor nu ne du nu dal léegi nag su ci keneen bëggee yokk leneen ba tey man nañ koo waxtaane mais man looloo ma yëkkati donc su ñu nee chef de l'opposition ñu ne nun nan ko yóbbu ca dernier point de l'ordre du jour ba ñu ca yeggee ñu ne gars yi waa yéen kat yéen a ko dugaloon kon wax leen ñu li ngeen ko bëggee ak ni ngeen ko gisee foofu lañ toll am ku laaj ca ca dialogue ba laaj xaw kan ci commission cellulaire bi affaire bi kañ lañ koy appliquer kooku ne ko deux mille vingt quatre <laughs> ma ne gars yi jeex na kon man aw nañ bàyyi ba ma jox leen. très bien Mamadou beneen question. beneen bi mooy question wu euh, Djibril Sène bi nga ko posé ci euh, suñu compte euh, Twitter ak hashtag bi di déclic moom lu mu li mu laaj ki nga xamante ne mooy honorable député nekkoon fi ministre laaj na ko ba xam ndax tey jii bu ko président Macky Sall woowoon ci gouvernement bi ndax dina nangu bu fekkee loolu dina nangu lan la war a mën a apporter lu yees Sénégal. bon <laughs> du may faral di. sawar day tontu ci yooyu parce que <clears throat> ma jàpp ne Macky Sall kilifa la mooy président la république mais à part président la république gënuma nekk kilifa te kenn du ne dem ne Macky Sall lu tax doo ñëw ànd ak Mamadou Diop kon pourquoi ñu di laaj man lu tax doo dem ma yéen ma ñëw. ma ñëw waaw mais attends rek ma ñëw waaw déedéet danga may bàyyi. ma yegg non non ah, non may ma ma yegg dinaa la ma àggale say say tontu nga koy fa nga koy jukkee day sori ba ëpp. déedéet déedéet non parce que laaj bi léegi ngay jéemeen fu. da ngay gàttal non non soriwut soriwut parce que il faut nit ñi xam fi may waxee. Euh, Makumba. Hmm. parce que loolooy tax waxtaan neex. parce que boo waxee te waxoo fi nga koy teg du baax. Hmm. dama bëgg man ñu jàpp ne. franchement quand même kilifa laa. Mhm. <laughs> yàlla dogal. kon est-ce que bu la Macky Sall woowee non non c'est pas ça. en fait li ñu bëgg a wax mooy du la en tant que jëmmi Macky Sall mu taxaw da lay woo en tant que président de la République. xam nga tey Macky Sall xam nga. mais man mm-hmm. xam nga maa ngi opposition. Mm-hmm. di opposer président de la république pour remplacer président de la. xam nga yow doo Macky Sall ci opposition mu la fay fekk. mu ne. xam nga doo Macky Sall bi muy bàyyi la mu nekk di la fekk. ah waaw mais man kon yow nga woo ah, ma woo ma di ko fa fekk. ah déet xanaa réew mi ñoru la. bu la nekkee ñu liggéey réew mi ngay doomu sénégalais. binta li mu wax yàgg nga. xoolal dama tontu benn waay ma ne ko bu ñu ñaan Sénégal toll ci situation bu mel noonu. parce que mën na am mais buñ ko ñaan parce que mooy situation boo xam ne réew mi dafa dugg ci catastrophe xam bu duggee ci catastrophe mënoo ne damay seetaan loolu situation yooyu bu nu ko ñaan moo tax ma ne. waaye déedéet waaye honorable mm-hmm. kon catastrophe yooyu tax a dugg ci gouvernement bi mu ne. catastrophe rek moo leen tax a dem jàppale bien sûr catastrophe kay kooku <laughs> kenn ñaanu ko. <laughs> loolu leer na ma <laughs> euh, Mamadou Ndiaye beneen question. Ah, bi bi bi mujj bu dee la moom li mu posé dafa ni euh, moom mi nga xam ne am na expérience politique gu année 60 ak année 80 nan la gisee situation politique actuelle est ce que jotul ñoom ñi nga xamante ni jiitu nañ ci politique bi def nañ fi lu ne jéem nañu def dara est ce que jotul ñu bàyyi ndaw ñi place yi euh, cité na sax ki nga xamante ni mooy opposant bi di Ousmane Sonko. voilà laaj bu am solo la euh, d'abord ñi koy wax déggin wi ñu am ci politique dafa wuteeg sama déggin déggin wi ñu am ci politique mooy politique mooy lekk may leen ndaw ñi ñoom ñu lekk. waaw góore waay non politique fi ma jaar ku ko dégg waroo mën a demal toog ndax la ma doon xeex ba ma amee vingt ans jógee gu fi dama jàppoon ne moom danaan damay ñëw jàppale si ma ma du Diop. sama baay wala sama maam ma ñëw jàppale ko parce que la mu doon xeex ba mu amee vingt ans ba tey mi ngi ci réew mi te jógee gu fi ñu naan demal noppaloo xam nga ñooñu kon seen problème réew mi yëkkatiwu leen ñiy wax loolu soit amuñu xam wala mbiru réew mi yëkkatiwu leen bu ku mbiru réew mi yëkkati ku ci jàpp da nga naan doyut na ñeneen ñëw jàpp ci Ousmane Sonko je le respecte franchement y a pas de problème il est dans l'opposition il se bat mais cette histoire d'alternance générationnelle arrêtons ça ah bon ñi dugal Afrique ci guta anañu tubaab yi joxuñu kenn à part Houphouët-Boigny ak Senghor ku am 40 ans ay 30 ans 32 ans 35 ans ay gone dong lañ joxoon Afrique ñu dugal Afrique ci guta du wu mag wala ndaw du affaireu góor walla jigéen du wu xees wala ñuul ñun ñëpp ñoo war a ànd nekk benn xeex li fi ne ñoo ñuy dugal loolu dañuy diviser waaye xamuñu ko nag. très bien Mamadou tontu Ah, mi ngi noonu kon je pense na ci question yi nga xam ne internautes yi posé woon nañu ko la a mm. répondu ak comme ni ma koy faral di waxee rek amul demi mesure ci ay laaj moom de en tout cas joxe na réponse yu am solo xam naa dina soxal euh, ñor bu baax euh, internautes yi surtout di wane ni euh, réaction yi bari na mais dañoo tënk rek jël ci ñetti question yi nga xam ne gis nañ ni internautes yi posé nañ ko lu bari yoon ñu daal di koy partagé ak Mamadou Diop Decroix je pense que réponse yi doy na leen di leen jaajëfal gis nañu réaction yi ci suñu page Facebook bi gars yi waxtaan bi amal na leen solo mais surtout intérêt bi nga xam ne jox nañ ko ñoom internet yi di leen jaajëfal xanaa joxaat leen dig daje ba euh, talaata ci beneen numéro déclic